Je dama joxe patriotique pour euh, fêter la victoire de ñu am dans tous les centres de vote dans les bureaux une victoire éclatante bi nga peuple peuple Sénégal dans la diaspora de manière général nous exprimer wu mécontentement mécontentement nous avons durant 2021 Le vote bobu dafa nek vote bi nga xamantene ñun pour ñu guérir ci ci souffrance yi ñu nekkoon ci la bu ñu nekkoon dañu ci lumière lumière qui sera dirigée par la coalition Diomaye Président euh, avec euh, son président Diomaye mais aussi notre mentor on ne peut pas l'oublier le président Ousmane Sonko tey bu ñu yegsee fii la campagne nañu ak mom def nañu lepp ak mom tay Ousmane Sonko comme nous koy waxé partout euh tabaxna ay maire tabaxna ay conseil tabaxna ay député tay mu ngi nii un président de la république donc dañoo fier content si si si victoire bi bi nga xamante foo natt suñu contentement rek passé na fa. ñu tuddee ko ko parce que nit ki dafa nekk ku endurant ku patient ku dëggu surtout dëggu bi parce que man musuma woon def politique comme ni ma koy waxee mais dëggu bu mu am ak patience bi ak transparence bu mu am moo tax ma suivre ko parce que buñ ko suivre Sénégal yeneen yi nga xamante ne kenn xamu ko woon ñi ñi xam nañ ko li nga xamante ne nu mu waxee lu ñëpp bokk ñëpp ñëpp ci jot. Yakarnani avec euh, le nouveau président qui sera accompagné par le mentor